Eh, waa daara xikmatul yawmi bi nekk Thiès cité ouvrière ak waa daara xikmatul yawmi bi nekk Touba daaru Tanzil ñoo leen di may xikma bi di leen fàttali ne ak di leen dollee yëgal ne mm, daara xikmatul yawmi ci Touba daaru Tanzil ubbi na fekk si daara xikmatul yawmi ji nekkoon Thiès muy ñaari daara kon ngir ñi nga xam ne nii dañoo bëgg bind seeni doom ngir ñu dugg ci daara ji moo xam ñu bëgg mu féete Touba ci daaru Tansil wala ñu bëgg mu féete fii Thiès ndax njàngale mi ak doxalin wi lépp benn la dara génn ci nag eh, at tarbiya wa taalim fi manhaji Cheikh al Xadim njàngale ak yare ci tëralinu Serigne Touba seen numéro téléphone mooy 77 633 77. 56 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amatu solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu aju rek ci njàngale mu yaatu mu kawe moomee nga xam ne nii jullit yëpp ci daan jëriñu àdduna ak àllaaxira te moom ñëpp la ko yéene woon kon ñu nit ñoo ngi ñaan ku déglu kàddu yi nga jottali ko sa mbokkum jullit ndax bu ñu sañoon ñëpp jëriñoo ko Serigne Touba buñ demee ci xikma ci xeetu juróom-ñett dafay wax ne Euh, mucc de ak jàmm bu ngeen ko bëggee àdduna àllaaxira ci yii rek lay juddoo ñu ne ko yan mu ne ci yéene aw yiw ak wax aw yiw ak jëf aw yiw ak taqoo aw yiw daal ne yooyu sax boole naa ko ci benn bayit boo xam ne nii danaa ko wax léegi moo tax mu ne assalaamatu wal aafiyatu fi dunya wal axira tatawalladaani min niyati alxayri wa xawli alxayri wa fi'li alxayri wa mulazamati alxayri wa qad jamactuha fi baytin waxidin wa huwa inwi wa qul wa faal wa laasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi na nga rek aw yow tey waxu yow tey jëfu yow kon da am eh, mucc ak jàmmi àdduna ak àllaaxira waxaat na ci xekk ma ne nit de yetti xaaj la muy xol bi ak làmmiñ wi ak baqiyatul jawa baqiyatul jawaare muy li des ci cër yi dal ne xol bi am na dëkk bu mu war a dëkk ak dund bu mu fa war a dunde làmmiñ bi am na dëkk bu war a dëkk ak dund bu mu fa war a dunde baqiyatul te mooy li des ci cër yi am na dëkk bu ñu war a dëkk ak dund bu ñu fa war a dunde daal ne xol bi ana fu dib dëkkam mooy tawxiid ana lu dundam mooy niyatul xayri maanaam yéene aw yiw bu saxee ci dëkkam bi di dund ci dundam bi du tumaraanki du yooy dal na làmmiñ wi ana fu dëkkam moo di zikrullah maanaam tudd yàlla ana lu dundam mooy xawlul xayri wax aw yiw bu saxee ci dëkkam bi di dund ci dundam bii du tumuranke du yooy dal ba xëyatul yi te mooy li des ci cër yi ana fuy seenub dëkk mooy alwaajibu wal mandub maanaam di sax ci lii la yàlla teg nga xam ne waajib la tey góorgóorlu ci lim la tegul nga xam ne nawaafilul xayri la maanaam def lu baax lu baax yëmut na waaye ndigal yi moom loolu moom forforce suba waaye nga def ko ba noppi nag di la ci lépp lu baax nee na loolu mooy ab dëkkam dal ne ana seenub dund muy cër yi mooy fexlul xayri jëf aw yiw daal ne bu nu saxee ci seen dëkk bi di dund ci seen dund bi duñu tumuraanke dunu yooy daal ne boo saxee ci yéene aw yiw ku la mën a bañ dana la mujj sopp boo saxee ci wax aw yiw ku la mën a ŋàññi dana la mujj tagg boo saxee ci jëf aw yiw ku la mën a toroxal dana la mujj teral waxaat na moom Sëriñ Tuubaa ca xikma ne wala takun min alxaafilina inda niya inna allaha alimun bi saati sudur bul bokk ci ñu sàggan mukk ci yéene aw yiw ndax yàlla xam na li ci dënn yi maanaam li ngeen yéene lépp suñu borom tabaraka taala xam na ko te jàpp na ko wala takun min alxaafilina inda alxawli qad samia allah daal na bul bokk mukk ci ñi sàggan ci wax aw ndax yàlla loo ngeen wax dégg na ko wala takun min alxaafilina inda al amal innahu bima taamaluuna basir bul bokk mukk ci ñi sàggan ci jëf aw yiw ndax yàlla lu def rek gis na ko te jàpp na ko daal di koy illa allah kon loolu mooy ndénkaane yi sëriñ bi nga xam ne ni ku ci bàyyi xel waxtu wu nekk doo jàdd mukk ndax yoon wu jub kocc la wu ne coow woo xam ne ni lépp aw yiw la kon nañ góor góorgóorlu ci yéene aw yiw di góorgóorlu ci wax aw yiw waaye di góorgóorlu ci di jëfee itam aw yiw